Thank you. dina ñaanal jàmm ci di ko ci yeen yéen mën ngeen abonné ci sen chaîne youtube ngir ngeen di mën di déglu mën di sétan lu ñu mën di duggal nga dem sétan ko inshallah meilleur ausubillahi minash shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wasalamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammad ibnu abdallah alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbok internet yi setan sen sen youtube ngoy tv te ñu del wat fi ni ci set ci wat jëm ju ragal yalla jëm jo xamantene ni ku jakarlok mom rek di nga xam kan ki amna am mayu yalla di serigne Abdourahmane Sar. saalibul xaq ñu koy dakantale borom jinne yi ak rab yi tey nag ñu war a waxtaane waat pàcc bu doy waar ci wàllum jinne ak rab nan lay duggee doomu aadama nan lay sonalee doomu aadama bu duggee doomu aadama yi bi itam nan lay manifesté woo ci moom loolu yëpp incha allahu bi dinañ ko waxtaane ak sëriñ Abdourahman gis nañu itam mu teg benn yet teg kaamir bi ci wetam teg itam ay bol bo xamanteni ay ndombo yu bes tak gis na ko ci ndax bima fi mujjé yi ni nii fekkuma ko fi won kon yi yeb inshallah rabbi tay dinañ ko waxtane ak sëriñ bi dañ koy baye mu noyo rek après ñu doga ñëw ci waxtaan bi noy nañ la sëñ abdourahman innahu min suleyman wa innahu bismillahi rahmani rahim aouzu billahi min asheytaani rajim wa inni ahizuha bika wa zuriyataha min asheytaani rajim ربي أعوذ بك من عمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ذي الملك والملك سبحان ذي العزة والجبر سبحان حي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بحق ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أه، انترنت أه، غوي تي في ñu ngi ñaan yàlla kàddu gi fekk leen ci jàmm. di gërëm ak a jaajëfal Seydina musa ci coono beeg déplacement bi incha allah. di xam ne ah ci lu yoonu liggéeyal yàlla la nekk. dëgg la su ko defee it tasaare lu baax feeñal lu baax. daanaka bokk na ci bëgg sa réew te bëgg sa réew yonent bi moo ne bokk na ci jàmm yàlla. dëgg kon bopp internet. bu ñu dégg bu ñu déggagul ñu ngi lay wax li ñu yàlla boole muy asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa wax dëgg fa yàlla yow itam ngay suñu xarit di suñu kilifa ba ñu xamante ba léegi wax dëgg fa yàlla yaa ñu yónnee lu baax eh, di ñu defal ay teraanga yi itam wax dëgg fa yàlla di ñu digal lépp loo xamante nii jàpp nga nekk ne lii buñ ko defee mu gën ci ñun yaa ñu koy digal mais Serigne Abdourahmane tey dama bëgg ñu xuus nag ci wàllum jinne ak rab sëñ Abdourahmane balaa maa ñëw ci laaj yi nga xamante nii mbokk taalibe yi laaj na yonee nañ ma ko pour ma laaj la ko dama bëgg rek ci benn cinq minutes rek nga faram fàcceel ma jinne ak rab. waaw ah, ci boobu question. Mm-hmm. muy question boo xam ne. Mm-hmm. Euh, lu jar a leeral la. Mm-hmm. ndax it euh, lu jëm ci wàllu jinne day lu tumuranke lu tumuranke ci réew mii nga xam ne. new na ngay dégg boroom xam-xam. bu cay waxtaan. dëgg la muy lu tumuranke loo xam ne. su ko alxuraan indiwuloon weddi ko dina yomb mhm. ndax les mos ta gis la wala ñenn mënuñ koo gis euh, damay def reetaan lool yenn suma mbokku sëriñ si mhm. suñ waxee doomu adama ne ko léegi dina la seetal ndax jinne moo la jàpp wala rab moo la jàpp loolu ree la may def mhm. ndax euh, ñaari kàllaama yu bokkul la baatub arab baatub olof waaye lenn li la dëgg la jinne mooy rab mooy rab yow olof li ngay wooy rab mom la arab di wax jinne moy bindef yoy nga xamne la ta yàlla sak do mo adama ñom ñoo feesoon suuf ci dal di yàq di yàq do mo adama ñoo fekk leen fi nak legi nak leleg sax nga dégg ku la ne xaral ma setal la euh jinne la jàpp wala seytaane la jàpp loolu yep ree la may def ndax lu yep ay batu arab la legi nak batu seytaane dafa am nuñ ko mëna faram faccé seytaane du caagan adduna bii ba ko yàlla sàkkee ba léegi. dafa am mbër mu fi taxaw mbër mi moo tudd seytaane. Mm. seytaane jikko la. dëgg ndax ba yàlla sàkkee adduna tey adduna ni mu toll yëpp. Mm. ak li yàlla sàkk yëpp yëpp. Mm. ñaar dong ñaar dong la ci yàlla tànn eh yéen ñaar moom na ngeen ma jaamu muy nit ak jinne léegi nag nit koo xam ne da nga fetteerlu ndigalu yàlla loolu. sànni ndigalu yàlla loolu. topp sa su amara bi soo yow nitu seytaane nga jinne yoo xam ne da ngaa weddi ndigalu yàlla loolu doxoo ci loolu la yàlla sàkk wa maa xalaqul jinne wal ins illa li yaxbuduun yow jinneb seytaane nga mhm. moom la alxuraan indi shayaatiinu ins wal jinn mhm. kon nag loolu la war a xam ci baatub seytaane baatub jinne baatub rab waaye lenn li dong la lenn li dong la. dëgg ndeysaan aca mu ngi noonu kon leer na nañ ndax laaj boobu sax ñëw na ci question yi xam naa dañu koy démarrer foofu rek euh, mu ngi tudd Serigne Ibrahima moom mu ngi sama groupe whatsapp bi mu ngi Italie. Hmm. Euh, moom moo ma ne boo jàkkaarloog Serigne bi nga laajal ma lan moo tax ñuy wax rab ak jinne to lépp ñu ne benn la. lan mooy seen différence ñoom ñaar te chaque sëriñ boo dem rek ñu ne rab moo la jàpp wala jinne moo la jàpp te rab ak jinne ñii naan benn la ñii naan du benn nee na loo ko mën a wax foofu. waaw euh, mooy li ma leeral sànq rek. Mhm. maanaam ñaari kàllaama la. Mhm. ñaari lang yu bokkul. Mhm. léegi mbindeef yooyu nga xam ne laata yàlla sakk doomu aadama sakk na mbindeef yooyu ñu nekk ci kaw suuf. tey lakk yi nu ñu bëree lakk yi ni ñu bëree français grec allemand olof séeréer bambara. làkk bu ci nekk am na nooy wooyee mbindeef yooyu. dëgg la mbindeef yooyu ñoom la arab di wax jinne mhm. soo déggee baatub jinne olof moomu ko olof moomul baatub jinne olof moomu ko baatub chiaati chiaatine sax cheytaane mhm. baatub arab la mhm. kon olof day pratiquer ay baatu olof yoo xam ne olof moomu ko da koo sàcc da koo léegi nag olof euh, arab loolu muy wax jinne moom la olof di wax rab mu ngi mel ni nga ne ndar ne Saint-Louis que ndax am na différence ndar ak Saint-Louis ni mu ñàkkee différence jinne ak rab noonu la ñàkkee différence lenn li la dëgg la dëgg la dëgg la kon leer na nañ ah laaj boobu leer na nañ si Abdourahmane balaa ñoo ñëwaat ci laaj yi dañuy continuer ci li nga yor nii mu yet bi ndax mos naa ko seetaan ci benn émission nga waxoon ci lu garaaw ndax cosaanu yet bi nii eh, si Abdourahmane mbokku téléspectateurs yi bëggoon na ñoo xam lan moo nekk ci cosaanu yet bi nga yor. waaw ah, alhamdulilah muy laaj bu mu amal solo. Mhm. Eh, ndax ku xam suñu wàjjur bu góor. Mhm. xam ne am na lu yàlla defoon ci moom. dëgg la ba tax na wàjjuram am lu mu yëkkati woon teg ko ci loxom nga xamne ne ibrahim alayhi salam yëkëti won yatam ba jox ko ishaq kon it waajur bu gor wo du azar tay donte amna ay dom amna ay mag ak ñeneen waye mu yëkëti li tay tek ko suñu loxo. xamna la tax mu bàyyi ñeneen. tan ñu tek ko suñu loxo. ndax loolu la yàlla def ci ñom la. ndax xamna ne amna lu ne ci njabot gi amna lu ci famille bi bo xamne ñun rek ñoko ko ñun rek ñoko mëna mën kon xamna ne mom bu fi jógee loolu ñun ñoko mëna doxal ñoko mëna wëyel moo tax du hasard mu yëkkati lii tey mm. ah teg ko loxo nga xam ne lu baati ne lu day war moom moo ci nekk mm. daanaka ngannaay la loo xam ne mm. dañ koy xeexeek shayatin yi nga xam ne ñoom ñooy fadd di sonal doomu aadama yi mm-hmm. aca shayatin yooyu sëñ Abdourahmane bu ñu duggee doomu aadama bi ba mu ñëw ci yow nan ngay jëflante ak ñoom ndax seetaan nañu déglu nañu itam sa yenn reportage wala yenn audio yoo xamante nii dañuy dégg ku nekk bu ay uh, fu sore sore sori lu mel ni ay ta uh, Louga wala suma juumul yenn dëkk yu sori ñuy jokko ak yow ngay fil ngeen di fajal seeni aajo sëñ Abdourahmane uh, am na ci ku ci laaj itam nee na ma sëñ Abdourahmane loolu muy def est-ce que jaru di itam ñooñu di déplacé wu di ko fekk si ndax xam-xam bi mu yor itam warul yombe noonu quoi. waaw oh, dañu yàlla na too xam-xam. Euh, mission moom la ñuy dox sur ndax benn mag daf doon wax nan nañ topp yàlla si jàkka ji. waaye nañ jaamu yàlla si nit ñi. dëgg la su ma bë sama mbokk sëriñ su bëri tey. dañoo jël wàllum ñaan. def ko utum xaalis. def ko utum koppor. li lay woon loolu tey. yaa ngi déplacé ba Dakar ñëw fekk ma fii suma kër Fatick. suma kër gi duma ko génn. président réew mi sax bu ma soxla woon sax moom mooy def déplacement. ndax léegi nag jinne jooju doomu aadama yi fekk leen ci weddi yàlla. Mhm. ñu lay loo yàlla ci jëf. Mhm. Euh, wa illah lan moo gën a yées tey. Mhm. demal nga jënd juróom-ñaari kaamil. nga gas ba mu xóot. nga di ciy gànnuwaay ma def la milliardaire. allahu akbar demal nga jënd kaamil bu bees tàq nga def ko ci toilette. Euh, ma def la milliardaire. jox ma benn cër sa yaram wi. wa illah di des sa dund yëpp dootoo sangu janaaba dootoo jàpp dootoo julli. wa illah nga joxe sa ngóora dootoo doon góor. am nañu ko àdduna jaral. ndax seytaane moom. loo mën a soxla ci àdduna ci kaw suuf. Mhm. alal xam-xam bu ñuul mbooloo xanaa nga ñàkk def lim la wax. Mhm. mais soo ko defee mu jox la àdduna nga gis ku dem def loolu ba pare nag àdduna wuy si la alal wuy si la mbooloo wuy si la alors ngay jël nag l'islam di ko mbubboo nag. Mhm. te yow fii nga jaar li tax nga am li nga am ñaanoo yàlla doomu aadama xam ko. di nga gis doomu aadama su ko def nag signé pacte avec le diable dem si la nag nga dema dema nag ba xalaat yàlla sa borom déema rëccu nag tiit ah waaye seetaan la c'est trop tard. loolu moom la ñuy wax yoole Mhm. Euh, loolu bëri na léegi. Mhm. te am na ñu koy def tey day ay xam-xam yoo xam ne yaatu waloon ci réew mi du aaday réew mi réew mi xamuñ ko woon waaye yeneen réew ñoo ko xamoon. Mhm. am ñu fa dem jéggaani ko indi ko ci réew mi. lu mel ni ay Nigéria. ay Burkina Faso ay Mali. Euh, fu ne lañ ko doon jëlee di indi loolu mbirum seytaane la ndax Sénégal damay wax ne réew la moo xam ne xamee wuñu sëriñ ak njabarkat. sëriñ ak njabarkat duñ benn. Euh, njabarkat yi mooy ki nga xam ne jinne lay jaamu seytaane lay jaamu ngir mu xamal ko. ñooy borom xamb yi. ñoy borom tuur yi ñooy borom nyai yi petawi, borom pettaaw yi ñoy borom xonku yi yi ñuul yi mhm. te njabarkat du texe njabarkat du taxé alcorane ko wax du sumay wax mhm. kon nak ñu wara rañé sëriñ ak kat duñ ben. Mhm. acca sëriñ ak njabarkat du benn euh, keneen laaj bi Ibrahima la mu ngi Bambey koku néna ma euh, ndax dem ci sëriñ mu jël lu nekkul alcorane jox la ko nga sangoo ndax loolu dagan na wala baax na daal ndax xam nga laaju jàmbur yitam kenn du ko xeeb quoi ndax dem ci maaraamu jël ay sunguf ay lu ne jox la wala ci seen njëq yooyu ñuy teg nga dem sangu ci ne la day dindi cat wala day raxas sa yaram te nee na boo ciy sangu sax day xeeñ xun nee na est-ce que loolu itam bokk na ci jaamu yàlla. waaw euh, mooy lima wax léegi rek. sëriñ ak njabarkat duñ benn. Euh, su ko defee. julit julit bi xas a an laa ilaaha illallah yow prisonnier nga prisonnier nga moo moomatoo sa bopp. Mhm. lan moo tax nga doon prisonnier yàllaa la ko wax adduna bii kasab julit la waaye àjjana yéefar la nu mu doonee kasab julit dafa am lu xaram ci yow am lu dagan ci yow. Mhm. julit lu ko neex lay jëfandikoo. Mhm. tey euh, tax nga sol sa daale dem di seeti ab sëriñ wala ab njabarkat ko luñ ko mën a tudde ñaar dong moo tax nga dem ca moom. da nga am feebar boo xam ne da nga bëgg mu saafarawu wala da nga am aajo joo xam ne danga nga bëgg mu saafarawu aajo moom ñaar la rek am na njëriñ booy xëcc ci yow wala lor woo mu dem Euh, loolu dëgg la am na loo xam ne mën na koo dindi. am na xam ne mën na saafara sa jàngoro ji. am na loo xam ne mën na faj sa aajo yi waaye est ce que xam nga ne lim koy mën a faj lim koy mën a faj waaye xaraam na ci yow. Mhm. loolu ni ma la ko mën a misaale tey su ma doon woyaase tey ma jóge fii Fatick euh, dem ba gare gare routière Saint-Louis. ma xool heure añ jot ma soxla lekk. waaye ma dem gis ay restaurant ma dem ci ñaari jigéen ñu ne ma ñu ne ceeb la doon jaay ceeb lañ doon jaay waaye jeex na. Mhm. waaye de euh, kee moo fa des waaye yàpp mbaam lay jaay. pourtant yàpp mbaam su ma ko lekkee dinaa suur. waaye sa su ma xoolee suma diine dinaa ko lekk. parce que am na lu loo xam ne mën na faj suma feebar bi dëgg la mën na faj suma feebar bi. waaye dafa xaram ci man. loo xam ne mën na faj suma aajo ji waaye dafa xaram dafa xaram ci man. dëgg la kon am na jëf yoo xam ne képp ku ko jëfandikoo rek ku ko jëfandikoo rek yaa tudde sa bopp jullit waaye doonatoo ko. ndax nag julit du aw tur du aw sant du diw ak diw ñoo ma ja ñoo ma jur. jullit comportement la. mu lay tax a doon jullit. muslim dafa am mushrik dafa am. amna na ñoo xam ne ni ma la mëna misalé nit julit digganteem ak yàlla suñu borom tay ni ma la ko mëna waxe ba nga xam ko bu baax diggante nit ak yàlla mu ngi melni ab sëy la ngir jàngale nit ak yàlla manam julit ak yàlla sa diggante ak yàlla dafa melni ab sëy la amna na ñoo xam ne ak yàlla tas na booba xamuñ ko sen diggante ak yàlla bam tassé dafa yag lu ko tas bokalé yàlla muy li yàlla gëna bañ kon julit xamal li dagan ci yow xamal li haram ci yow dafa haram nga sol sab di dem ci ab njabarkat ndax njabarkat bi dafa signé pacte ak le diable dafa tayle boppam dafa jox boppam seytaane moo ko tax a xam li mu xam li mu xam jinne ko ko xamal li ko xam seytaane moo ko xamal mooy borom xamb yi mooy borom pettaaw yi mooy borom tuur yi mooy borom laar ndax li mu xam su jaamul seytaane seytaane du ko ko xamal kon soo demee ci moom it ngir sa feebar bi ngir sa aajo alalu seytaane rek la la mën a jox ndax lim la jox noonu loolu moo xam noonu seytaane moo ko xamal loola te au contraire loolu day tax seytaane yi gën laa ñeme day tax jinn yi gën la ñëmé ndax seen alal nga yor seen bagage nga yor mooy ndombo yeeg bédale li nga xamné ne li ngeen gis ma koy tekk ci doomu adama yi way nak yalla wax nako ci kaaru alquran wala kina waye waaye ak saranaas li ci nit ñi laa yax la mun xamuñu ñàkk xam seen diiné gogu nak moo tax ñuy xoss ci bokkale yalla est-ce que xam seen diiné ñuy vocal ya yalla to yalla ken la allah wahidun euh, seigne abdourahman ñu gis ndombo yi ñu tegati ni ndax nit ki bu ñëwee ngay tikki ay ndom du toog ak yow nela la ma ko joxoon de nee na lii lay saafara ci man nga dindi ko ba pare mu taqali ko ak loolu ndax loolu mos na am. waaw euh, comme ni ko gisee nii. waaw euh, yaakaar naa euh, ndombo yi nga xam ne. Mhm. doomu aadama bu fi xasa teg tàkkam. waaw lañu ñuy njëkk a def. Mhm. moo yëkkati voilà. waaw yëkkatil noonu ah, gis nga waaw walaay waaw. lii yëpp. Mm-hmm. Euh, li yëpp maa ngi ko tekk ci ay doomu aadama. walaay ndeysaan. waaw li yëpp maa ngi ko tekk ci ay doomu aadama. Euh, ay saaku saaku saaku ay saaku to benn benn du ci alxuraan. Euh, gis nga ko. li li li dem laa ko tekk ci benn waxambaane. di li ay bëjje nag. ah gis ko. walaay lii dafa xaram ab jullit di ko takk. walaay ndeysaan jullit bu def lii sa yaram. jullil wóoral demal makka yàlla neen soxlawu est ndax doyloo nga yaakaar nga keneen keneen ku dul man yàlla mi la sàkk. est-ce que ndax lii nga yaakaar. lii bokkale yàlla def cee yomb. shirk la bokkale hmm. yàlla la ku ko deyaale lakk. ndax xam nga ne yées na tey. commerçant bi xëy di jaayee. Hmm. dem ba ci yoon wax eh sama ndombo ba. daw si waat si kër gi. ana yàlla. wallaay mi def choc. oto bi këpp. Hmm. ah yàlla muccal la ñeneen loru gaaño hey sama ndombo bi. ana yàlla Sénégal dañoo mën a bokkale yàlla. wallaay euh, ndax ni ma ko leerale mhm. yow ñaan nga yàlla dem Makka. Mhm. waaw lan moo tax tey boo fi jógewoon di dem Makka ñu tekki lii kat du dem Makka. waaw nga tekki ko denc yëkkati sa ngaay denc daal di dem Makka. Mhm. Makka dina fa xaramal dara daganal ko Sénégal. xam nga ne sàcckat bi def katu ñaw teef bi reykatu nit bi bala ko pénitencier yi dugal ci biir kaso bi dañuy tekki ndombo yëpp daal ko dugal ci kaso bi waaw loo xam ne nag fi nga soxlaa sa bopp fi lañ koy dindi ana ana njëriñam yow jigéen ji nekk en état yàlla mi xareñ ma mën a jël doomu aadama def ko sa biir bii ngay dox ak moom nga mën a lekk lu tàng doo wàññi liir bi dara nga xeeb kattanu yàlla jëlaat lu ne fas ko sa yaram bi nan la ngay muccal liir bi waaw yàlla kan moo ko ëpp bala ngaa yëg ci table bi da ngay accoucher sage femme yee njëkk a dagg sa ndombo yooyu teg ko ne nga door am doom kon dëgg-dëgg du gàllaaj waaye gàllankoor la julit mhm. waxuñ ne mënuñu la fajal dara de waxuñ loolu mhm. bien sûr mën na la fajal dara mais dafa xaram ci yow dafa xaram ci kii wax ashhadu an la ilaha illallah dafa xaram ci kii wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in est-ce que ñoom dañuy fàtte nag li xaraam li bëgg a def li dagal bëgg jël li faj bi moo ñàkk xam seen diine ñàkk xam bi ñàkk xam seen diine ndax nag li ëpp li ëpp ci sénégalais yi daanaka gëstu wuñ seen diine xamuñ seen diine xamuñ xam xamuñ lu xaram xamuñ lu dagan ni ma la ko waxee léegi am na loo xam ne mën na ma fa mën na ma fajal suma jàngoro yi mën na ma ko fajal waaye xaram na ci man dëgg la su ko jëriñoo dëgg la suma jàngoro gi dina war waaye doonatuma jullit dëgg la waaw doonatuma jullit xam nga tey ni ma la ko wax léegi soo heure añ jotoon heure yañ jotoon ma wàcc ci garage ñu ne ma restaurant yi da jeexal nañ ceeb waaye yàpp mbaam moo fi des mhm. pourtant su ma lekkee yàpp mbaam bi dinaa suur waaye est-ce su ma xoolee suma diine dinaa ko lekk déedéet noonu la mel mhm. am na lu mën a faj sa feebar bi mhm. am na lu mën a xëcc sa aajo ji am na lu mën a tax ñu jël ci papier ya nga déposé waaye xaraam na ci yow dëgg la léegi nag loolu soo ko jëfandikoo soo ko jëfandikoo nga xam ko nga ñàkk koo xam sa digganteeg yàlla tas na mel na ni ab sëy ab sëy bu doxoon sa digganteeg yàlla sëy booba tas na tas na ci loolu nga jëfandikoo ndax iyaaka nax bu yastahin bi ngay wax yàlla hmm. nekkul dëgg ci yow est-ce que ndax nag xam nga sénégalais euh, mooy koo xam ne bëri na bëri na ay kàllaama yuy génn ci làmmiñam hmm. bëri na lu muy wax ci làmmiñam hmm. da koy wax waaye li muy wax dund ko à cent pour cent bëri na kuy wax laa ilaha illallah barke bi dund dundul dundul laa ilaha illallah bëri na kuy wax bismillah tàmbaliwul ci yàlla kon bëri na kuy wax iyaaka nax bu yaaka saxin mm. da koy wax rek waaye dëgg-dëgg dundul iyaaka nax bu du yaaka na saxin dëgg la xoolal wax jooju iyaaka nax bu du yaaka na saxin yow rek laay jaamu ci yow rek laay sàkku ndimbal mm-hmm. waaw est xel na iyaaka nax bu du yaaka na saxin xel nangu na iyaaka nax bu du yaaka na saxin boo xam ne sa ndigg lépp ay béjjén la ki petaaw iyaaka nax bu du yàkk na saxin xam ne xam ba yàgg béjjéen yàgg si taatu daqaar gi wala ci ginnaaw néeg bi dëgg dëgg iyaaka nax bu du yàkk saxin bi nga mhm. la may ihdina siratal mustaqim bi nga koy ñaan wallaay jullit mhm. dafa am moon li yëpp li yëpp adduna la sàkku adduna la rek te adduna mhm. li yëpp xaalis méddum adduna la matal xayaatu dunia wallaay ëllëg ku la ëpp alal ku a ëpp alal moo lay gën a yàgg si kanamu yàlla moo lay gën a taxaw si kanamu yàlla yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam mooy gën a mooy mujjee dugg àjjana ndax alal ju bëri lam amoon nit dootu ko am mm-hmm. ah su ma la su la yàlla ne su ma la tus adoona yow ma isi ani naayim mm-hmm. dërëm boo am di nga wax noo ko amee ak bi nga ko amee noo ko def mm-hmm. ëllëg milliardaires yi nu ñuy def kon wallaay dinañ waaye nag doomu aadama yi jaamootuñu xaalis la ñuy jaamu xaalis mooy seen yàlla da ngay gis famille sax famille même euh, borom njaboot mag góor jigéen nga xam ne yow am nga ay doom waaye doom jeeyal la yàlla def wër jox wërsëg Euh, ñi yalla xañ leen tay ka yalla jox wërsëg te mu doon xalé sax danaka moom ngay gëna favoriser sax ci kër gi mo lay gënal ñeneen ñi tek ko ci kaw ay magam ndax lan mo am xaalis di gënale ay doom ndax xaalis nit ñi xaalis lañu jaamu léegi waaye jaamontuñ wolatuñ yalla mi leen sàkk est-ce que wóolootuñu ndax addu alalu aduna euh, seigne abdourahman day rek ci melokanu jinne euh, laaj bu mujj bi moy ki mbay Fall la ndax mën nañu xam er nga xamanteni ci la jinne yu bon yi di dox ak erreur yi nga xamante ni ci da jinne yu baaxee di dox waaw alhamdulilah euh, jinne yi mm-hmm. dañoo bëri ay xeet mm-hmm. ni nga gisee ay tukulóor bambara séeréer mm-hmm. noonu lañ bëri ay xeet am na yoo xam ne ñu ngi dëkk ci géej gi ñu ngi dëkk ci ndox yi am na yoo xam ne ñu dëkk ci montagne yi am na yoo xam ne dañuy ñaw ci jaww ji waaye am na ñoo xam ne dañoo dëkk ak ñun jin nit ñi kër gi nga nekk sax kër gi nga nekk sax dafi yeewoo soo ko xamee soo ko xamul yaa ngi rombanteeg jinne yi say dëkkandoo lañ mais gisoo leen rawatina ñu bëri si toilette yi la ñuy dëkk Mhm. moo tax toilette yi toujours ma si dox am njàngale bëri na ku jinne dugg tey mhm. ndekete si toilette la la duggee mais yëgoo ko mhm. ku bëgg a mucc ci loolu moytul di dem ci toilette di fa demee yaramu neen moytul root ndox moo sangoo dem si ndox nga root ko dem tekk ko ca wanag wa ñëw toog di waxtaan bu si kanamee nga dem sangu ji ndox moom nga bàyyi ca wanag wa bala ngaa ñëw ñu def ci tooke moytul nekk ci biir wanag di wax ak ñi nekk ci biti euh, booy dugg si toilette na nga dugg ak sa tànk càmmoñ bi nga wax ñaan gi yonent bi jàngale allahumma inni a'udhu bika minal xubusi wal xabaa'is mhm. dañuy disparaître sooy génn nga génn ak sa tànku ndeyjoor bi nga wax xufraanaka mhm. su ko defee nag fajar teel fajar teel seen heure la mhm. njolloor deux heures trois heures seen heure la waaye guddi tamit ñoo ko moom ñoo ko moom moo tax ndeysaan di nga gis xale yu jigéen yi nga xam ne ndeysaan dañoo dëkk village day dox ay kilomètres ay kilomètres ngir dem jàngi xam ne dañuy wàcc ay deux heures trois heures bi nag di ñibbi ndeysaan pour jëne dugg foofu loolu na ko parents yi xam surtout xale yu jigéen la waxtu yow seen waxtu la. dëgg la dëgg la kon laaj boobu leer na nañ waxtu boobu seen waxtu la. Hmm. mais moytu bi mooy mooy bañ a dox air boobu quoi. waaw euh, ngir am kaaraange. ak kaaraange. ngir am kaaraange daal ba mucc ci ñoom. waaw euh, waxoon naa leen ko. Hmm. sénégalais boo ko waxee lu koy jëriñ da koy xaw a eeb xeeb da koy oyofal. Hmm. gis nga jàpp jàpp. jàpp rek dafa doy gàllaaj. ah bon jël sa tala jàpp wallaay gisuma lu ko ëpp ci gàllaaj foo gis doomu aadama bu jinne dugg wala kuñ liggéey wala kuñ kort wala kuñ def dara waat naa ne jamono jañ ko koy def daa yorul njàpp hmm. moo tax ku ko mën foo toll foo toll del tax koo njàpp hmm. bu ci tayal dara fu sa jàpp toje jàpp toje demal nga jàppi waat bu ci tayal dara loolu rek dafa doy gàllaaj jinne yi dañ lay daw da nga gis jinne ju taxaw sax de bëggoon naa ko dugg de waaye njàppam gii tax amu fu ma ko jaar hmm. comme nag guddi la ñuy dox lu ëpp ci guddi la ñuy dox xam nga ne nekk sa lal di nelaw Ah, am waaju ñëw tiim la. Mhm. te mënoo koo gis dafa doy waar. dëgg moo tax ku si bëgg a mucc bu leen ko yemale ci yow yàgg sa njaboot am leen habitude saa yoo dematee guddi bay tëdd tëdd rek a des ngir yàlla bu ci tayal dara demal nga jël satal nga jàpp nga door a ko bismillahi rahmaani rahim. Mhm. kaddu googu rek la ñu ragal. Mhm. kaddu googu moom bismillahi rahmaani rahim comme ay cartouche seen kaw. hé eh, foo ko waxee duñ fa teg tànk bisimilah rahmaan rahim même ku tiim aw ñam aw ñam di ko lekk waxoo bisimilah rahmaan rahim soo ko xamee soo ko xamul ñu ngi lekk ak yow te xamoo ko soo jëlee naan di ko naan waxoo bisimilah rahmaan yaa koy naan hmm. moo tax boo xamee boo xoolee ci cosaan hmm. si euh, suñ maam yi lu ñu xamoon ay ndaa ay ndaa ñoo ne ci kër gi da nga gis ab potu pot bi nga xam ne moom la ñuy naanee hmm. wala lan moo tax bu ñu naanee ba pare ñu dëpp ko jinne yee tax ndax boo naanee ba pare teg noonu pot bi dañuy ñëw di ci naan waaye soo ko dëppee duñ ko mën a jëfandikoo gis mag ñi dañoo xamoon même boo tegalee say waa kër añ deux ñu añ añ ba pare bool bi am lu ci des nga dem dellu ko ca waañ wa ngir yàlla bu ko bàyyi noonu ci waañ wi ndax boo ko bàyyee noonu jinne day ñëw di ci lekk bu ngoonee nga jox say doom ñu feebar dee leen tëj ñam yi oui pour yow mi nga xam ne dangay toog di jaaxle doo am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew ak Ngoy TV da ngay am lépp luy actualité Ngoy TV say information day leer nag Ngoy TV daal c'est le pare nag yemul ci lool de lépp luy événement lu ci mel ni làmb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV pare na pour gunge la wala danga nekk mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV c'est le meilleur c'est donc abonné sur Ngoi TV ngir di am actualité ak information yu leer service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 Voilà, 77 950 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoi TV Dal c'est le meilleur abonné di am say actualité ak information yu leer TV Dal du ay faux <laughs>